Baye Djili Escabir ma maa ngi lay ziar Fallou Mbaye jërëjëf Cheikh Mouhamadoul Fadal <laughs> général bu Mbour ak Boy Malika général Mbour moo féetee sunu ndejoor Boy Malika fete sunu càmmoñ moom tamit di xale bu mënoon a bëree ay tolof tolof daloon ko waaye vraiment mu ngi ñëwaat ah ndax mam mujj gi daf ko daan général mbuur daf ko bëgg jàpp. te booy Malika ci ay déplacement la bëgg jouer moom ba daan ah, eh, eh, jël na coup eh eh booy Malika li muy bëri nii lan la booy Malika da ngay caaxaan général bu Mbour boo jëlee boo jëlee boo jëlee koom da ngay am problème booy Malika mu ngi manœuvrer général bu Mbour booy Malika mu ngi manœuvrer général bu Mbour jàpp na général jàppul. laay laaj ci sàppale nga stade Fallou Mbaye ay ca ca ca jàppante na ñoom ñaar dara xewagul jàllal ma ci ndox mi boo fi nekkul woon tey mu ñaaw ay ca général Mbour jàppul dara mais booy Malika fi mu jàpp baax na général mu ngi bëgg a jàpp waaye booy Malika daf koo xañ booy Malika daf ko ko xañ jàpp ba noppi ubbiku xañ ko pour mu jàpp stratégie la ñu ngi bëre ñoom ñaar ñu ngi bëree booy Malika général Mbour di poulain Bombardier booy Malika di poulain bu Malika ñu gën ko xamee ci Zaay l'ami de risque le grand service disait eh. mu ngi manœuvrer vraiment général bu Mbour effectivement bu ko bu ko manœuvrer wul ak taille bi mu yor daan ko dafay jafe parce que macha allah mbër mu gabari la waaye ngeen balaa ngay tas waa Touba ñoo ngi leen di nuyu Fallou Mbaye di ziar ñëpp di waaj màggalu Daaru Khodoos waa kër Serigne Mbacke Madina ndeysaan waa kër Serigne Cheikh Gaynde Fatma Wali Ndour ziar naa la arbitre atte waat na atte na parce que jàppante nañu mais kenn ci action aussi buy daan sa morom entre général bu Mbour ak ki nga xam ne mooy booy Malika. ah ca arbitre sifflé mais dafa mel ni physiquement booy Malika moo gën a taxawaan Ardo moo bëri léegi ak Kirikou Kirikou daan ko jël bu rëy ma tax ma naan Kirikou est petit non Kirikou bii n'est plus il est grand ayca mu ngi naan leen bëri leen ndongo Diop maa ngi laa ziar eh général ngay dóor général ngay dóor booy Malika fayiwul ba tey moom dafa mel ni ci bëri bi lay ci bëri bi lay eh mais pourquoi booy Malika amul euh, maanaam amul xeex dafa war a xeex waa ji séant la boo xeexul ak moom dalay daan booy Malika xeexul ci jàppante beeg mbapat bi rek la ko bëgg miser te punkal booy bëre ak moom foog nga déplacé ko Fallou Mbaye nee na buur maa ngi lay yëgal ni Balla day am ndam ci karam dina leer Boy Malick général bu Mbour Bassirou Diouf maa Diouféen yi tey bëri nañ sama live bi trop tey arbitre day àtte effectivement bëri wuñu bëri wuñu defuñu dara lu concret sincèrement parle bëri dóor la ñu wax nekkuñu Adrien Senghor war a terrain gi nekkuñu làmb combi yooyu déedéet arène nationale Cheikh Lo nee na top 5 lay topp ci kanam lépp dina leer ay Pape Diouf balance na ba noppi bu gaa yi pare day yëngal moom it ba mu saaf ndeysaan ñoom magay tëggkat bu mag boobu ñoom Bakkan Seck ñoom Baye Demba Ndiir grand Souleymane Jules Diop général Mbour ngay naan ndox guux na tuuti ndox sotti ko ci yaram ba Maada John maa ngi lay ziar John Wally booy caam nee ndam rek incha allah Maada Jonn ndeysaan siyaar naa la Maada <laughs> non fii tey day neex c'est comme à la télé ñoom ñaar bëre wuñu Boy Malika général bu Mbour sincèrement bëre pour dire vrai bëre wuñu arbitre baa ngi leen di fuyetewaat maanaam di leen xool Baye Dame Ciss maa ngi lay ziar bu baax Baye Dame Badou Baye Dame Ciss sama rakk ja doomi Paas Ciss càmmiñal Maguette Ciss ak ñoom Xaadim Ciss Sunugal 24 topp sama waa ji <laughs> mais nag Maliou Aliou topp c'est mon ami ah May Diouf nee na Bassirou ñaanal ma ma gagné arbitre sifflé waat na ci diggante général lu mbuur ak Boy Malika Boy Malika moo wan gannaaw général bu Mbour man da jàppoon naa ne que la ñu waxante woon ñoom ñaar keroog ci signature de contrat ba bu ñu dajee làmb ji du def une yaakaaruma ko vraiment yaakaaruma ko dañuy jàppante waat Boy Malika boo xeexul ak général mënuloo ko daan c'est impossible dafa diis. làmp Sow nee na victoire pour bala Gaye 2 ci kanam dana leer mais booy Malika soo xeexul ak général mënuloo ko daan c'est impossible mënoo ñëw nekk am ndaama moom mu nekk am njool ba noppi di super lourd nga bëgg ko manœuvrer bëgg mbapat ak moom bëgg ko jaay doole daan ko c'est impossible c'est impossible man Bour Gueweul mbaay gëmaguma loolu gars yi tap seen bee ngi noonu yen ñi nekk Europe gépp ndeysaan mi ko <laughs> ma ko nee buur la malfaiteur li ngay wax ragal du ko wax dundal lu bari seytaane or bi <laughs> ay waay mil sagal nga ma mil ko sagal nga ma yow mi ma tuddee seytaane or bi waaye fadam mooy jarbaatu rajim <laughs> min ko defeyaa nga yow <laughs> booy Malika vraiment mu ngi dépense dépenser énergie boo xamante ne que vraiment vraiment vraiment c'était inutile c'était inutile mënoo bëre ak luur bu toll nii ne da ngay mbapat ak moom c'est impossible ah un luur kenn du mbapat ak moom Afelele Muzo, thank you. I am watching you here in South Africa. Thank you very much, my brother, my friend. Thank you very much. From South Africa, from Johannesburg. Thank you very much. The very Zulu. All this nee na buur yow xam nga kuy daan xaw ma ko de oldi bu <laughs> ma dugal de vraiment booy Malika ku yabaate la sincèrement xaw ma est-ce que entraîneur am mu ngi toog ci banc bi mais bu entraîneur am toogoon ci touche yi walla ci banc bi dina ko jox ay consignes Fatou Gueye Fatou Gueye Balla Gaye ñëw na waaye kenn séenagu ko li gën a garaaw mooy Thierno nu géey lañu gis ak Sa Thiès mu dugg si mais Balla Gaye de dugg seegul ci stade bi yee afelele Mbuso South Africa Mbaye Diouf mu ne Basiiru mënatuma jot sama xaalis soo ma ñaanalee rek yàlla suturaal ma <laughs> ndeysaan vraiment booy Malika fooguma woon ne que dina bëri lii mënoo ko jaxabal ndaama nga général dafa taxaw ubbi ay tànkam c'est impossible mënuloo taxaw foofu gis nga dalay jongle boo mooy tuul Pape Abdou Cissé Pape Abdou xaw ma dara bu ma dugal booy Baabri booy bu ma fa defe mu ngi bu dugal <laughs> booy Malick li ngay bëree mënoo ci daan waa ji c'est impossible waxi buur géwél la jali muus la da ngay sonn boo moytul waa ji mbaar la mbaa nga sonn mu jaay la doole daan la soo xeexul ak moom mënoo bëre ak moom daam siis malfaiteur bu mag bi <laughs> walaay ndeysaan borom daaru kii mu ne boro xoñole boro xoñole mooy kan cukkuli <laughs> wala ay sàppale nga star boro xoñole booy Malika il est incompréhensible làmb dafa am ay règles ak ay nar il faut apprendre ak connaître ton adversaire mënuloo nekk ndaama lu yor pratiquement taayu Eumeu Sène waa ji di punkal moo xam ne toll na ni Bombardier nga bëgg bëre ak moom tout le temps da ngay éviter la bagarre bëgg mbapat ak moom pour vider ko d'accord mën nga ko vider xëj na mais quand sa ça serait inutile boroxa ñelle mu ne bilaay walaay say wax jëli muus la wax rek gis waaw waaw en tout cas Tapha Tine bi ma gis ni mu ñëwee ci làmb ji la ma ko doon rapproché yëpp des aspects psychologiques bi maa ngi gis ne que mu ngi tàqali ko ak moom mu ngi foo mu ngi ree il est à l'aise il doit être à l'aise Tapha Tine n'a pas le droit d'être sous pression déedéet Pape Seck xaw kii daan de du yàlla du ma rakk yàlla duma ma doom <laughs> xaw ma kan mooy daan man ak yéen a ci yem <laughs> dañuy seetaan rek ba xam la moo war a am waaye général bu mbuur tamit mënul toll ni mu toll bàyyi bàyyi booy Malika muy diriger le combat depuis lors c'est inadmissible man mbër mu défensif man buur j'aime pas mbër da ngay jël ses responsabilités Raphaël Mbouzo mu ne bee pro online thank you very much my brother thank you thank you my brother depuis South Africa te ku la la république arc-en-ciel la terre des Zoulous ndeysaan il ko mu ne buur dama la bëgg na sama doomu nday nga mil <laughs> ko wutal dama garaat nee na ma seytaane or bi xanaa <laughs> kon sàppali sàppali mooy rajim or bi ma <laughs> lu buur ni lay demee day neex dañuy dund làmb waxtaan foo sans pression ñu xam ne ñun ñëpp ñoo bokk ndey ñoo bokk bàyyi làmb la rek ay waxtu moo ci des mu jeex Balla Gaye ñibbi këram Tapha Tine ñibbi këram fan si ñibbi seen i kër dem reeri ba suur loolu mooy àddina loolu mooy làmb booy Malick général bu mbuur yéen ñaar yi tiit fi dara lu ñu xam Lamine Bara sàppale nga sart yéen ñi may sànn ak diaspora bi bu leen fàtte top top seen ah gis nga gis nga booy Malika day éviter xeex bi ok waaw général effectivement général foog mu xeex général bu xeexul doom li mu bëgg moom tamit day yaacaaral ba booy bi dugg ko mais booy bi tamit li muy bëree booy Malika il est inutile il est inutile sincèrement sincèrement Ibrahima Ulkumarek from Gambian people from Gambian people waa Birkama waa Serekunda waa Pakaaw waa Sénégambian ay waay buur a ngi leen nuyu ndeysaan nand wuy lekkatu ebe mooy nuyu Mansour suma xarit nekk ci du mag boobu Fatou Network Aboubacar maa ngi lay nuyu di la Ibrahim maa ngi lay ziar naaru suma mbokki Gambien yëpp bu Khadir Mbaye nee na Balla Gaye yàlla na am ndam seede maa ngi lay ziar yaa ma gën a baax senegal vert ñoo ngi lay ziar mon ami emblème bi am na solo trop Sénégal vert garab day ñod di taw tey dëgëral suuf am na solo mais booy Malika xàmmeewu ma ko booy Malika li muy bëree xaw ma kan moo ko digal mais vraiment lim ko digal ça n'a pas de sens. waxi buur jali muus la wàqi seen mun loo nekk ndaama di bëreeg géant bu toll ni di wut à tout moment corps à corps bi pour bu ko vide d'accord mën nga am cause mais bu boobaa di nga dépenser énergie inutilement asta lay nee na un la ci kanam lay leer arbitre àttewaat na bëriwu leen fi dara lu ñu xam sincèrement depuis lors booy Malick mënuloo bëre ak nit te doo xeex ak moom général jël na avertissement pour sortie délibérée gis nga général xeex bi la bëgg te booy Malick bëggul xeex booy Malick boo matul dañ lay dóor nga daan boo xeexul dañu lay dóor nga daanu ça je vous bu général dëggalee boppam rek gis nga gis nga ñaar ñii dañuy match nii ol si maa ngi laa ziar ndeysaan nee na buur ak fadama làmb neex gis nga jël nañ sa tànk booy Malika moytul général parce que bëre woo quand même quoi qu'on dise neexal nañu làmb ji dem ak alaaj sàppali seytaane or beeg setu rajim bi ay <laughs> eh, Malick Touré day takk ñaareel cëm yërëmal sa bopp yaa ngi ni siburu boole ko tooy tooy biir manqué nga fer manqué nga calcium